بوكي تاليبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونجلين دي نويو دي لين زيار دي لين بالو حق دي لين بال دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقل كوفي دوليكو كاتن بما موتلي مبولم اي نالم اكا يينيم جي لغي الشيخ الخديم diko ñaanal mbollem njabootu Serigne Touba gi yeb ak kilifa diine yi ak julli yi ak talibi di nuyu ak ziyara khalifatu Cheikh Ibrahim di Serigne Abbas Mbakke diko ñaanal yàgg ak wer ak mbollem njabootu borom daaroom ti di nuyu Alaaji mam Cerno xalifatu cheikh seydil maxtaar sëriñ cheikh aw balla ñaan yàlla mu yàgg ci bopp njaboot gi sa sunu borom kàttanal ko ba li mu yéene lépp naalal ko way juróom baax yi mu eggale ko di nuy jawrinam di ko siyaare alxaaji muhammadul maxtaar mbakke ñaan yàlla sunu boroom wéral ko te yàggal ko te dolli ko kàttan nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di ko tàmbalee ci sëriñ Mamor Mbakke ibnu sëriñ Cheikhaw Balla moo ngi jël nuyoo bu sell bu tedd di ko teg ci loxoom di ko jox wàccuwaayam di nuy njabootu alaaji maam Thierno gi fi nekk di ko tàmbalee sëriñ siit yi mi nga xam ne moo nekk ci boppu njaboot gi ñu di ko ñaanal mook ay rakkam yépp suñu boroom yàggal leen ci ginnaaw seen kilifa gu baax googu sunu way jur wu sell woowu alhaji maam Cerno Mbakke nuyu njabootu sëñ Mapaate Silla gi nga xam ne ñoo fi nekk may jaarale nuyoo bi ci sëriñ Modou Kara Silla Diiwaan mu jàllaleel nu ko ci kilifa mi mu seqal kër gi yépp di ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ ma paate di nuyu sëriñ Sidi Mbakke mi nga xam ne moo woote bis bii te ànd kook mbooleem njabootu sëriñ si xaw balla gi yépp ci njiitul alxaaji maam Cerno ànd kook sët yi waaye ànd koog taalibe yi ak seex sëriñ si xaw balla yépp nuy ñaan yàlla sunu borom kàttanal ko mu yàgg koo taxawee ndax jëf ju rëy la jëf ju rafet la muy woote bis boo xam ne dana ciy fàttaliku di ci nafar dund kenn ci njabootu Serigne Touba di Serigne Cheikh Awa la yaa xabaara dunub di nuyu El Hadj Abdoulaye Peex noo ngi lay ziare bu baax di la jaajëfal jëfal it ci sa taxawaay ci kër gi waaye sa taxawaay ci yoon wi sa taxawaay ci réew mi. jërëjëf yal na la yàlla fay te kàttanal la ndax sagoo nga Serigne Touba ci jataay bu nekk te nangu ko ko waxtaanee fu nekk kon noo ngi lay sant di la gërëm bis bu mag bii nu nekk nag di bis boo xam ne bisub Serigne saxaw Awa Balla la te Serigne Cheikh Awa la mata waxtaane ci jataay bu ne ci àdduna bi jëfam mate na ko jikkoom mate na ko mu ñu war di ko waxtaanee it ci jamono bu nekk ngir daf ñuy gën a won rek waxtu wu nekk baat bii ñuy saxal di wax ne sëñ Tuubaa amul moroom ak sëriñ Tuubaa kenn la la koy gën di firndeel jamono bu nekk mooy bu ñu tuddee kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa tudd ay jëfam tudd ab taxawaayam tudd aw meloom ñu ne kii sëriñ Tuubaa moo ko yar wala kii sëriñ Tuubaa mooy way juróom wala kii taalibeb sëriñ Tuubaa la loolu day gën a wone di gën a dolli taxawaayub Serigne Touba di gën a won nit ñi di gën a won àdduna Serigne Touba fan la jëm ak ñi mu doon àndal fan la leen jëmee ndax koo ca natt rek àndaali sharia ak àndaali xaqiqa daf koy matal sëkk li tax suñu borom wàcce ab jaam ci kaw suuf it dañu koy matal muy jaamu ko ak dundal suuf si fexe ba liggéey yar nit ñi defar leen yóbbu leen suñu borom ñooñu nag Serigne Touba da cee tànn ay kóoy yu baree bari yo xamne ko ca tan waxtane ko rek day delu ci Serigne Touba ndax lolou lépp day woné Serigne Touba Serigne Touba mom nga xamne la ben bind ka doon wax ne xadimul Mustafa xawtul animi lisaanul xaali tashhadu lil xadimi بمثل الشيخ لم نسمع حديثا ولا في سالف دهر القديم وانا serigne touba day ku melni mom ken musuko deg du ci ñëwëy waaye du ci yu bees ñi fi nekk ku mel ni moom kenn mësul dégg ku mel ni cheikhul xadim di koo xam ne la sëñ abdourahman mbakkeem cheikh abdul xudus waxoon ne sëriñ tuuba de afna alxayaata bi ma yurdi l wa ma jaa rasul bihi mafruudan wa masnuna dundam gépp daf ko jeexal ci diggante yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di baagante ci toolub jaamu yàlla ak liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yar ay kàngam yoo xam ne nag koo ca tudd rek tudd nga sëriñ Touba tey boo tàbbee ci buntub maam Thierno Birahim borom Daarul waxti yi mi nga xam ne doy na bu fekkoon ne nettaliwun bokk yi ne maam Thierno demoon na ndar moom la fi Serigne tubaa bàyyi woon maam Thierno nangam waaye doy na ñaari baat sëriñ tubaa dafa waxoon ne maam no de mooy ki nga xam ne. mës la juuyoo ak man du ci ak ndawam du ci ak magam waaye Sëriñ Tuubaa yi moo waxoon ne maam na mooy ki nga xam ne mës la tàggook man du ci waxtu ndawam du ci waxtu magam kon ku Sëriñ Tuubaa ne mosoo tàggoog man ku Sëriñ Tuubaa ne mosoo juuyoog man jëlu loon dolli lenn te Sëriñ Tuubaa yi waxoon na ko yónnee ko bataaxal na ko nanga xam ne yow de yow Thierno man gërëm naa la ngërëm loo xam ne. ŋàññi du ci topp mukk saa yu sa bët tegee ci mbind mi xamal ne gërëm naa la te yëpp yemuma ci gërëm la maa ngi lay sàkkul ci yàlla sunu boroom loola sa kem yépp di ñeeyee ci àdduna ak ci alaxira boroom daarul ci moom mu nga xam ne Sëriñ tubaa moo ko wax ne ayyuhal masbuux bi naa bu fekkoon ne mbëggeel cofeel paaka la yow lañ ci rendi yow Ceerno Ibra Faati ngir bëgg gi mu bëgg Sëriñ tubaa ak jeex gi mu jeex ci Sëriñ Tuubaa waaye ni mu bëggee Serigne Touba it mooy ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko Serigne Touba bëggee mooy di ko roy baayaata xayral qadiimi waqta dayta bihi loolu la ko borom xam-xam ba na ko borom Daarul Muxti yow de jaayante nga ak Serigne waaye bi nga jaayante Serigne Touba yëmuloo ci jaayante gi waaye waqta dayta bihi da nga koo roy nga xam ne Serigne tubaa rek ngay roy ci say guddi ci say bëkkat ci say bëccëg fil xawl wal fi'li hatta xusta busraahu nga xam ne waxtu wu nekk sa waxiin. du juuyoo ak waxinu Serigne Touba waaye sa jëfiin du juuyoo ak jëfiinu sëriñ Touba ci waxtu wu nekk ci loola nga nekk yow maam Thierno Birahim kon borom Daarul Muxti moomu nga xam ne nag mooy way juru sunu kilifa gu baax gii di Cheikh Awa Balla yaa xafaara dunub mi nga xam ne kenn ku ne xam na ab taxawaayam ndax doy na kuy sa way jur ñu ne maam Thierno Birahim maam Thierno day ngor ak jom aku ku fit ku ko xam rek loolu nga ko xamee koo xam ne kenn la sëñ Moussa Ka ne mësula rët mësula tiit du jaaxle mësee fu ko kalaame bor moo baaxle kenn mësta xupp borom daaru ba mu dellu ginnaaw soxna Fati Isa way juróom bu baaxoo mas naa wax mooy bi sëñ bi nekkee ci géej gi te tubaab yi léegi-léegi ñu ñëw di jël si borom daaru di ko di rëppatal seen fos yi di tiire seen bali fetal yi am ku ne soxna Fati xanaa doo wax ci maam Thierno mi soxna Faati si na leen déedéet du ci wax dara ndax koko yar kumu yar do ñàkk aw fit te fit wu nek ci borom darul muhti Cheikhul khadim moko def ci mom bu né koko moy wayjur Cheikh aw Balla don na doy mu ganjaro ko don na doy mu puukare woo ko na doy mu nek chaaram bo xamné fum jëm daf koy yobalé way Serigne Cheikh aw Balla dafa jël loola nak def ko muy laxasay def ko muy gañayam def ko muy ras bi nga xamné ci lay yek ba dem ci njobaxtal yegna kawe boo tuddee sëñ Cheikh Awa Balla te néewoo ibnu maam Cerno Ibrahima it ñoo xam Cheikh xaw Balla ndax jëfam la si xaw Balla marqué ci jamono ba ñëpp xam ku Cheikh Awa Balla si xaw Balla moom nga xam ne waxtu wi muy ñëw àdduna mooy waxtu wi sëñ Tuba nekk ci liggéeyam bu rëy boobu liggéeyam bu yaatu boobu liggéeyam bu sori boobu liggéeyam bu kawe boobu te moo di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéey bu réy boobu mu doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam bi borom daarul Muxti di nekk guy nguraa dëkk boobu fi la Cheikh Awa Balla feeñi jamono te bokk yi guy nguraa béréb la boo xam ne bu ñu koy nettali dañ faa war di taxaw tuuti ndax dafa lu bari lu fa xew loo xam ne maam Thierno dañ caa awar a jàng surtout nit yi jamono ñii nga xam ne léegi jàpp nañ ne ab sëriñ moom ab copain la sëriñ moom àndandoo la sëriñ xam-xam la sëriñ nangam la fekk xamuñu dëgg dëgg sëriñ ndax sëriñ pas la. loolu li nga koy xamee mooy foofee fay guy Ngora njabootu cheikhul xadim gi tawat nañ cheikh Mouhamadul Moustapha cheikh Mouhamadul Fadal cheikh Mouhamadul Lamine Baara borom Daarul Moxti lalub deram julli ñaari rakka ñaan boromam na ko bu fekkee ne seriñ tubaa nar naa delsi ma di ko laaxan kenn ci njaboot gi naa ñàkk bakkanu soxna Faati Isa mii di sama wayjur wala ma ñàkk bakkanu sëñ mu doo balla wala man cerno sama bakkan dem ngir njabootu Serigne dund sëñ bi jaral la ba njabootu sëñ bi jaral la loolu moo tax pas-pas bi mag ñi amoon ak gëm gin gëmoon sëñ Tuubaa ak wóolu gin ko wóolu woon loola moo leen may lépp lu ñu am ci sëñ Tuubaa ba lu ñu làmb naj mooy mu jaral la nga ñàkk sa bakkan sa njaboot ñàkk sa bakkan sa way jur wi nga amit ñàkk bakkanam ngir sa doomi sëriñ dund ngir sa doomi sëriñ dund loolu war nañ cee xool taxaw bi ci ah, maam Cerno Birahim foofee la si Awa Balla ganee jamono waaye nekk koo xam ne it dana ca doy rek fi doomi soxna yépp jaar mu jaar fa muy xam-xam bu bari te doy na ci nit lan la ñuy xamee xam-xamam mooy jëfam ndax sëñ Tuubaa moom fi muy natt borom xam-xam bokkul ak fi ñuy natt borom xam-xam dem na réew sàngam ak am na diplôme sàngam ak dëkk sàngam la jeexe jànge sëñ Tuubaa nee na inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunu luñ la mën a siteel diplôme buñ la mën a wax te ragaloo yàlla sëñ Tuubaa nee na buy lim borom xam-xam yi buñ la ca boole kon xam-xam li muy jariñ moy ragal yàlla xam-xam limi muy jariñ jëfee te serigne Cheikh awballa ya ghafaru dhunub dunub na xam-xamam tak ragal yàlla umpul kenn ndax ragal yàlla ma tax ñu diko dakantale sax ya ghafar ko xamne fo tollu ya nga ngi naan astaghfiru ko wa atubu ilayk waxtu wu mi ngi jéggulu yàlla borom waxtu ne mi ngi tuub ngir borom ta du bakkar bu mu def waye lan motax moy gëna jégué yàlla gëna xémem yàlla gëna bëgg suñu borom garaat bu mu jéggi tey jàll ca beneen di xemme meneen maqaama mu gën a rëy meneen daraja joo xam ne moo gën a màgg loolu moo tax fu mu toll mi ngi jéggalu boromam subhanahu wa taala koo xam ne ci jéggalu yàlla lay métier woo moom si aw bala yaa xafaaru dunu loola doon na ci doy melo wax ne suñu borom jagleel na waaye mu nekk koo xam ne it dafa am cër bu rëy ci Serigne Touba am jagle gu rëy ci Serigne Touba Cheikh Awa Balla day dafa bokk ci ñi nga xam ne bu guddi jotee bu nit ñi tëddee di new ña ngay naafila foo ko fekk mi ngi taxaw di julli bu julliwul perum kurus baa ngi dal nga xam ne waxtu boroomam wu ne ak waxtu wa ca topp amul wenn waxtu wuy wéet ci moom wala waxtu wuy féex wala waxtu wu muy moom waxtu wu sëf na ko ay ngëneel ci topp yàlla ak wéetal boroomam waaye yemul ci jaamu yàlla googa waaye di ca boole nag li ko yàlla jox ca taraanga jox ko ci ay xéewal sëñ Cheikh Awa Balla di ko dimbalee nit ñi di ci jàppale di leen ci taxaw te loolu kon boo ko xoolee danga nga ci fekk ayat yoo xam ne daf ñuy jàngal ci ñoo ñu melaw yi am ak tagg wi leen suñu borom tagg te sëñ Cheikh ñooñu la bokkoon sëñ Cheikh Awa moom mu nga xam ne it taraanga ji mu am Serigne Touba moo waxoon ne Cheikh yàllaa ko teral te ku yàlla teral teral ko day dolli sa taraanga te Serigne Touba kum ne kum ne yàllaa la teral bu ne kum ne diw tedd nga rek noppi ngaa teddati ndax loo fi gis ci àdduna lu riir mi bari bari waxi sëñ Tuubaa rek ko defar kenn ku nekk benn baatub jaay jëf la la wax mbooloo di la topp di liggéey di la jox te du fi bàyyi ko diirub suñ borom a ngi fii ndax barkeb sëriñ Tuubaa day sax loolee nag la wax ci Cheikh Awa Balla yaa xafaadu dunu mu nekk koo xam ne ñett yi ci sëñ Abibu Mbakke imam waxoon moom sëriñ Mbakke Kajoor bi mu seet see sëriñ Cheikh Awa Balla te ku ne xam na gaa yi yàlla yi xam nañ cëram léegi nii rek la ma bàyyi Cheikh Ndiaye di nettali ne dafa am bis ñu jóge daarul ma naan dem Mbakke Kajoor di di yalwaani nee na bi ñëwee kër sëñ Amar Fall Mbakke ñuy yolwaar sëñ Amar Fall daan na ñooñu ñan la ñu ne ko ñun ay dongay sëñ mu ne foo leen bàyyi ko ñu ne ko kër sëñ Cheikh Awa Balla mu ne boo leen demee na ngeen gën a jàpp Cheikh Awa Balla ak seen fukki loxo na ngeen jàpp Cheikh Awa Balla seen fukki loxo ndax bu góor yàlla yi jógee fëx wuti seen borom bu Cheikh Awa Balla jógee kum riiram kenn du jigéeti benn jéego te Cheikh demu ba riir ma jàll loolu sëñ Amar Fall te ku ne xam na ak wilaayatum ak bi mam mu ne bu Cheikh Awa Balla jógee akum riiram jëm ci góor yàlla yi jëm ci suñu ku mën a doon doo jéggi benn jéego te yaa xafaru sunu jàll ba noppi kon cër la ba mu ne kon na ngeen ko jàpp ak seen fukki loxo Cheikh Awa Balla moom mu nga xam ne ku ne xam ne cëram dafa remplir mission sëñ Abibu Mbàkke da ko mas a wax ne yow diine jëmu la ak bokk jëmu la yoon mi nga nekk jëmu la Cheikh Awa Balla diine jëmu ko lin fondement yi l'islam muy seere ñaari bati seere yi taxaw waxtu julli julli juróom natt asaka woor weeru koor aj makka li ñu tëral lépp yaa xabaar sunu matal na ko sanc nay dëkk yar nañ ay nit wéetoo jaamu yàlla ci ki ak i bëccëgam bëtam mës ta tabbi ji lu dul noona noppam mësu koo dégg te lépp lu mës a jëfandikoo xalaalan yi ba lay doon kon diine jëmu Cheikh Awa Balla te loolu doy na am na sëñ Cheikh waxaat na ko léegi nga xam ne tam tamxarit goo xam ne ñetti fan yi tamxarit dafa toog ba yàgg yaram wi diis mu libbat diis lool bi ñu ko laajee wax ko ne ko teenoo dem wax ko maam Thierno mu dem woyi docteur bi mu ne matu ko Cheikh Awa Balla na leen jëru ko malaaka yi ak saxaaba yi ñoo ñëw di ma sargal si ci at mu bees mii malaaka yi ak saxaaba yi daal na leen nag jinne yi ci ànd seen xel yi moo neexut moo tax sama xel mi wëlbatiku waaw léegi ku ñuy sargal loo def mooy da ngaa jëf ba mu mat ci wéetal yàlla ci di ko sàmm sa digganteeg moom bañ di la sargal yaa xafaara dunub kon diine jëmu ak bokk jëmu ko Cheikh Awa Balla digganteem ak i bokkam da tàmbali ci Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim boo demee ci kër borom daarul motti fu ne seetal tey dana doy ci Cheikh Awa Balla ak i bokkam koo tudd ci biir Cheikh Mahamadul Fadal boo demee ci Cheikh Mahamadul Amin Baara doon na doy rek tey ñu ne Cheikh Awa Balla Cheikh Sidi Muxtaar mii nga xam ne moo fi jógee bu yëggul liggéeyal fi sëñ Tuubaa loo xam ne bët mosu koo gis nopp mosu cee daje ñu ne kun ko tuddee ñu ne yaa xafaara dunu muy Cheikh Awa Balla muy Cheikh Sidi Muxtaar Bakke mu baax mi fi bàyyi ko bu yàggul jikko ju rafet dox ko lay bokkam ànd ak moom boo demee kër sëñ Fallu fekk fa caatum Cheikh Cheikh Mahamadul Fadal ñu tuddee ko Cheikh Awa Balla sëñ Fallu daana wax sëñ Cheikh bala na ko yow ku gore nga baatub gore nag bari na kuñ koy wax te ci bitti la koy def waaye bu wéetee du ko def gore moom ci kaw yomb na ngir bëggu tagg ak bëgguñu ñu ne ak baax waaye wéet gore wéetali ku gore moo jafe te Cheikh Awa Balla daa wéet gore wéetali ku gore bokk gi jëmu ko diggante ma Cheikh Amadou Bachir Mbacké doy na ca kenn ku ne xam na mel xoola bi mu amee tiwaawoon moo jël këram jox Cheikh Mamadou Bachir Mbacké moom Cheikh bal la fenn fu nekk mu di fa ànd ak moom ci ay melo ak dundalu bokk kon diine jëmu Cheikh Awa Balla ak bokk jëmu waaye yoon wi jëmu ko yoonu murit dafa am lu mu baaxoo xam nga yoonu mu murit du yoonu seetaan yoonu murit du yoonu waxi kese yoonu murit yoonu jëf la te Cheikh Awa Balla lu ma a jëf rek jëf na looy marqué ci dëkk bi Cheikh Awa Balla 1933 la sañcub dëkk ci nekkug maam bi Birahim muy darul mën naan Cheikh Awa Balla barkeeluwul ci barke lenn dafa jëf-jëfi boppam sañ ci dëkk muy daarul naan sañ ci Touba Raouf sañ ci daarul minam pet sañ ci daarul waxaab wëlal ci réew mi mbaa ba gaaraas cilmaxa Bambey ba ci Dakar bi mu fi amee kër tubaab bi dana ko ndax da ngaa bëgg a moom dakaar mu ne ko déedéet faa moom moo ma gënal faa moom moo ma gënal waaye xoon doon fàggul démb ak tey jii moom Cheikh Awa Balla boole kon al ibadatu xidma jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba ci ba bëccëg suba ngoon ci wéetal yàlla dëkkam yi mu sanc tey dëkk boo dem ni dëkkub lislaam di mel ni dëkkub jamono di mel dëkk yooyu Cheikh Awa Balla sanc yëpp mel na ni ngir jëf ju wér ak taxawaay bu rafet boo xam ne suñu borom defoon na ko ci ko ak bokk jëmu ko yoon wi jëmu ko bu dee ñim bokkal diine demal ci alaaji Ibrahima Ñas doon na doy ci ay waxam rek raafaxtu fii nuski mu jaawira sa liilu carno mbakke daama shakira wajadtuhu fi lxilmi maa yox ki jabala lillahi duru xat faaxa nubu la dal aw doj ko gën a dal ngir mën a dal dal gi na teg te xam boppam xam lim am ci boroomam xam cër bi mu am ndax xam na bopp Cheikh Mahamadul Muxtaar mas na koy laaj naan ko gaa yi baax yi kum tudd na ko ndax di wëlli yu la si Cheikh Abal na ko waaw man ay mag lay tudd di wëlli yu la si Cheikh Abal na ko waaw ba mu yeggee mu ne ko xam nañ ki ma doon man ñooñu ma lay wax ne ay wëlli yoon la xam nañ kan mooy Cheikh Cheikh Abal jàngale waate lan moo di kilifa ak nangu ko ak xam ko ci topp Cheikh Mahamadul Fadal waaye topp Cheikh Amadou Moustapha waaye topp sëñ mu daaw Balla mi nga xam ne mooy taaw maam Thierno Birahim mës na wanewu leen jëfi boppam ak njàmbaaru boppam ak jomi boppam may na ko jëf waaye xam na fi muy teg tànkam ci men yépp melokaan woo xam ne jaar na ci moom Cheikh Awa Balla nekk borom melokaan woo xam ne la ko waykat ba ne ko jaaraama Cheikh Awa Balla wàcc nga wàcc nga wàcc kon daf doon xëy di wàcc def nga loo war a def def nga loo mën a def ci faj aaju Cheikh Awa Balla bi mu fi bàyyi ko kenn du ne cay bu ne woon lii wala lee wala lee digganteem ak boromam mat na digganteem ak i bokkam mat na digganteem ak diine mat na digganteem ak yoonu na Cheikh Awa Balla la ma ne su leen a jot de waaye Cheikh Awa Balla baax fu waay toll di ko dégg te loolu fu waay xool ci adduna dégg mu nekk koo xam ne dafa amoon mbañum rus xam nga lii nu incarné léegi nit day marqué jamonoom jël say empreinte dugal ko ci lislaam nit ñi di la naw dama ne boo tiitaroo diwoo ma jur képp jël sa kol teg sa baat te jëfoo ab ceeb doo lay yilif wala sàmm ndax day jëf loo jëfut am loo amut man loo amut te nit ñi ko am alal ñu topp la léegi waaye Cheikh Obal fexe woon na ba du topp baadoo la te du topp buuru du topp kenn ngir wéetal gi yàlla ak jaajëfal borom danaan faj aajo moom Cheikh Obal Cheikh Obal li mu doonoon da ko marqué xam jamonoom xam jëmmam xam boppam xam taxawaayam. ci jëf ju rëy jooju ko suñu borom jëfal ci diggante ak sëriñ am na bis mu ñëw nuy si sëriñ tuba njaareem sëriñ tuba ñaanal cheikh aw balla muy dem ba booree ndindi moom cheikh aw balla yaram wi libbat mu mel ni tawat bin ñëwee wax ko sëriñ tuba sëriñ tuba dane cheikh dara dalu ko li ma def ci moom la gaa yi yàlla yépp ku ma gërëm dama lay defal loo xam ne bu ma la ko ñaanalee benn cër bi laa lay jox bi ci des ma téyel la ko ba àjjana cheikh daa koo jox lépp moom moom ba àjjana xaajaluma dara cheikh aw balla dama ko sotti lépp moom yaa xafaara dunub ku amoon wàcc waay ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa bëggoon ko koo xam ne sëñ Tuubaa may na ko ndox mu naan Cheikh Awa Balla warmaal gum ko warmaal fonk gum ko fonk xam cër bi moom sëñ Tuubaa xam kan mooy Cheikh Awa Balla ci pas-pas ba ak taalibe ga ak dëggu ga ak sell ga ak melawu tedd ba ko suñu borom jagleel nekkoon murid saadix nag moom Cheikh Awa Balla te murid saadix kat du ab bat murid saadix kat du mbaxtu murid saadix du mbubbum kese lii xew jamono rek léegi est-ce que yeeg fasaaleeg maa ngi sa ginnaaw ak jëwriñ dana baax bul ma fàtte nga xam ne daray positif suma classe gi amatuñ ko sab sëriñ du la gis sa doomi sëriñ du la xam doo jébbulu doo joxe addee ba noppi beru di dégaase looy encaissé ba ku la gëm ku la gëmul nga mer te ku bëgg a gëm sëriñ si nga lank naa fiq googu bi mu gën a loolu loolu xew koo seen léegi ab sëriñ la bëgg a doon jàngkat yi sëriñ waxtaankat yi sëriñ communicateur yi di ay sëriñ duruskat yi di sëriñ président daayira di sëriñ léegi ñëpp a bëgg a leen di wax te yëfi coow du ko dindi xol bu tàng mënu ko di ku mënta fexe ba sa maam delluwaat ndar mënoo fexe ba sëñ Tuubaa doon doon sa morom te léegi bu nee diw nangam léegi baaxul sëñ Tuubaa gi sax pour ñu tudd ko problème lay doon waxuma la sëñ Tuubaa waaye jëlal nit diine ñi nga naw ñëpp comparé ak maam Thierno Birahim juróom-ñetti fukki at yu manqué ñeenti weer la dund yoon la ma sa tiim bi mu amee ndox fay ndox borom dalul moom lu mu nattu rëy lu mu ne alhamdulilah googu gëm yàlla jooju tawxiid ku ko am ba egg ci maam Cerno Birahim daamal dar te teewul taalibe sëñ Tuuba la day raamal sëñ Tuuba di wuyoo sant sëñ Tuuba wuyoo Mbàkke sëñ Mor Anta Sali de wuyoo Mbàkke maam Balla de ndax Mbàkke ji moom bu ci sëñ Tuuba duggutoon du kulóoru li ko taaral ba mil ni Cheikhul Xadim la sëñ Tuuba moomu nga xam ne lu mu tabbi mu gën lu mu tabbi wut lu mu wax mu gën lu mu waxul moo defar loolu lépp kooku moo teg loxo Cheikh Awa Balla yaa xafaaru dunub borom jëf ju borom jëf ju mag jooju nga xam ne kenn du ko sikki sàkka waxuma la loola waaye Cheikh Awa Balla xoolal léegi laa ko wax Baye Cheikh Ndiaye ma ne ko jëfi Cheikh Awa Balla jërul guddal xoolal njabootam jëf yu nekk rek doy na ci sëkk tàmbalee ko ci sëtam yi sëñ maam Mor mais di bi ci atam ba ca alaaji maam Cerno mi di taaw kenn ku mën a jël baaraam joxoñ ne am naa lu ma mën a jamee njabootu Cheikh Awa Balla amul bu du ci diine du ci xam-xam du ci jëf du ci teraanga du ci man du ci sàmm du ci fit koo ci tudd ku nekk xam position ba mu am ba fa ko loola la muy jàngale mooy meloowu kon lii ñu def jël bis boobu kàngam yu mag yooyu maam Thierno Birahim ni mu toll tey jii boo génne woon général yi borom Daarul Moxti yi yóbbu sëñ ma pàtti si rek mu doyub général boo yóbbul sëñ ma pàtti si la rek léegi sëñ ma pàtti si ku mu doon ñu ne la sëñ ma pàtti si la général la day commandé ci biir état maam Thierno Birahim borom Daarul Moxti tam sëñ ma paate si la day sëñ Tuubaa nëb na nëbi suuf ca gànnaar daan na paate si la yowmal loo ramm ramm da nga desal lu toll nii léegi nii bi sëñ Modou Kara Sylla di ñëw sama rongoñ dafa sotti ko lu ko waral mooy ñu ne sëñ Kara Sylla lay ñëw sëñ Kara sëñ Cheikh Sylla sëñ ma paate nga xam ne sëñ Kara moom demutoon gànnaar waaye teewul tey bi ne sëñ Modou Kara ñëw adduna bépp nii daje ñu ne léegi loolu kan la ñu ne njabootu sëñ Modou sëñ ma paate si la diiwaan ngir jëfal Serigne Touba. ci mag ñoo xam ne cër bi nam léegi bi ko sëñ bi nettali nga xam ne sëñ Modou Kara mii nettali na ma lu yaatu ca hôtel Bafora ñu bokk nekk fa ayig bis mu di ma nettali ci sëñ Modou Kara sëñ la ca yaman koku di tali bi seigne touba borom dalu wax ci tali bi borom dalu mo ci soufey loolu la cey jangale ci wowo melo kon joji jëf lan lay jàngale boobu doxin lan lay mel nañ ko jox addiya daje leen addiya ji mu ñew daje leen addiya ji mu ñew daje leen addiya ji addiya seigne seigne Modou Karaas la diwan addiya seigne pande si la addiya Cheikh Obal la na ji ñew daje leen addiya sëñ bu ñew li fi wax jarnako nañ ko jottee ba ñu yëg jarul yëg nañ ko jottee ci suuf lii fii wax jaar nañ ko te dañ fiy toog di fi wax loo xam ne yàlla wax ko yonente bi wax ko sëñ Tuubaa wax ko yoon di baatare kon bu ñuy wax ci sëñ Tuubaa kenn bi rek Seex Obal ak suñu paate nañ ko baatare dañ koy seetaan site internet yëpp a a ngal këpp ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñu yokk mu compter fi mu loolu kon li muy jàngale te boo demee ca quartier ga da ngay fekk sëñ Mapante Sylla di général ca quartier borom Daarul Moxti ne boo demee kër Cheikh Amadou Bamba Cheikh Ibrahima Falloum Cheikh Amadou Bamba mooy sëñ Mapante Sylla maam na borom Daarul Moxti amul lenn ndigal lu ma sa jóge ci Cheikh Ibrahima borom Daarul Moxti tabbi ci nopp sëñ Mapante Sylla te saafarawu amul lenn ndigal lu mas a jóg loolu amul xanaa déggoo leen li sëñ bi doon nettali léegi bi sëñ ma fàtte si la di dem gànnaar xanaa déggoo leen nettali di dajee ki gaynde di dajee lu nekk dem ba ci digg àll mu rëdd aw rëdd na bu kenn génn rëdd wi ki génn rëdd wi rek aar naa la waaye bu kenn génn rëdd wi dugg ci biir xur wi laxasoo am yeew woo xam ne mu ngay fudd léegi-léeg mu bëgg koo daanee léegi-léeg mu yëkkati ko ba ak si paate taxaw na kenn yoru ci yéen saatu mag ñi kenn yënguwul am koy am saatu yëkkati sànni ko mu jël ko di rendi ba tàggale bobba laxas ni ko daal dem kenn ci sëñ ma baara njaay kenn ci mag ñi ne ko waaw baa jaay yàlla joojul kiiwu la mu ne baa jëppee wuleen ko jaan ñu ne ko ah ñu ne xamuñu lu mu doon mu ne dafa am junne ju mag ju gëmut yàlla di yéefar ne ci xur wii di dogale ñu jóge ci réew ma jëm ci kon sëñ Tuubaa du moroom li nga ko mën a natte xame nga ko ni te lim def ci àdduna kenn mënu ci dara dara dara dara dara waare mënu koo dindi xol bu bon mënu koo dindi bu noo dagg rangi kenn du la gëm loo mën a wax du la faale ndax li ngay dagay si ngay encaissé koo dégg muy wax di déngat ku ko gëm la bëgg ku la gëm képp nga bëgg jox la jox la lañ yor ndax lu nga joxee nga jël kuy mën a dund bi yàlwaan nag addiyee gën a foor waa kër sëñ Tuubaa yii lin mel kenn mënu ci dara dara dara dara na la neex mu neex la neexu la jarat na lay jural baa cancer xol bu bon nga dëkk ci gan ñi ñaaw sa kanam tourné doo ci mën tus sëñ Tuubaa fi ne kenn mënu ci dara dara nañ ko nangu bii sëñ Modou Kara di ñëw de riir mi mu àndal mbooloo ànd ñuy sikkar comme naqari sa xol mën ngaa juutal sa bopp ci kàmm ak a mënoo ci dara barke bi day sax di wéy baraka ci waasi'atun mubaaqiyatun baqaa mulkuhu sayyibati safi kii woote fii tey sëtub Cheikh Awa Balla kuy wéy demutoon géej borom daaru demutoon géej nan nangu jëfi sëñ Tuubaa yii ci yii muy def te nangu magi sëñ Tuubaa nii nii ñu mel te sëñ Tuubaa mii ñu jàpp la sëñ Fallu waxoon nañ ko def sëñ Fallu nee na sëñ Tuubaa dañ naan ko nikk na ko nankutum na ko katiiw na ko tarawliis bu nu dara tax a deng deng bu nu dara tax a deng deng bu nu dara tax a deng deng kenn ku nekk nga jàpp na ko jàpp ka nga gëm na ko gëm bu la kenn tàggaleen moom bu la kenn tàggaleen moom koo xamoon faajo aajo fa nga jëm ko xamoon fajuk aajo yaa koy def ko xamoon fajuk aajo yaa koy lijjanti di tegtal nit ñi fajuk aajo sa aajo faju wuddu dara lekk gaa ngi neex na neex na daal su ko lekk ni ñëpp boo reggee ko lu lekk diw lu ma togg diwoo ko ñulug nag jërta wax ku saw ko ku xam nañ ko ku tedd xam nañ ko ku tedd de xam kon maa ngi leen di sant bu baax di gërëm sëñ Sidi jërëjëf Mbacké noo ngi lay gërëm nit ñi moom kenn moomu leen bi nga wootee nu si sa jikkoog sa meloo ko waral kon jërëjëf ku cerno di sa mam Cheikh awbal di sa mam la wuro ragal ta mbake mbake mom bu ragale xaw fu ngoy waxe ji ndax sa mam bi ñepp ngimi mi wut ñëpp not duut kenn dimut mom kay padam ken gungé wu ko xaribun la da jundi la ida wa silaahuhu turaysu bi sukri khali mak da fi la bawon ñepp 95 tak ku dem liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam koku kum doon sa mam faaw nga bu fit kon jëf ji ngeen di jëf yalla na sax no ngi leen di sant non bu baax di leen gërëm ndox nun Cheikh Awa Balla la ñam te Cheikh Awa Balla nee na woon Cheikh bu amee golo it bu jaabee ku ko seen xam ne golo ak seexa lu ma Cheikh Awa Balla daana wax ne ku ma bokkal daje am na lu ma la gën li bun boo amee fas maa mu fas yaa xafaara dunub kooku zo xëy batin wa waxaar bu dee tëll nga wa rahmatullahi